اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم أه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين مبوك جليدي نجلن دي نوي باخ دي مبوك سنغال يب اك مبوك سندارا دي جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خامن لو يالا بيندي موتاخ من نك ماغي تود عبد الله كامرا نيك في تي ساجرا Imam Al Hajj daoud kamara rahmatullahi alayhi wa radi anhu eh, di geureum tam ñi nga xamne ñoñu set ci tay muy sen dara te ci turu Amadou li jom ak soxna tabarakallah so Satu Njaay soxna khadijatu Njaay ñi ngi contane bu baax di sante yalla bu baax di geureum tam di rafetlu eh, tam bi ngeen ñu laaj pour ñu war ko waxtane ndax lepp dafa jëm ci diine te yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas dama laa yónni pour nit ñëpp amul xeet bi bàyyi xeet be kon lii ngeen def maanaam yàlla ngeen koy defal mais adduna yëpp ngeen koy defal ci li may bëgg a waxtaan nag mooy li nga xam ne moo xew ci jamono tey ñu di ko jooy ñun ñëpp muy balaa yi nga xam ne dafa xew ci àdduna bi te yàlla avertise woon ñu bu yàgg يونتي صلى الله عليه وسلم تم افيرتيسي وون ني بو ياغ بروم خام خام في الله تك تم افيرتيسي ني واي يالا دوغال خاجنا امنا ني ديغ واي امنا ني ديغول يالا نك دافا واخ تي القران ني بو فكي نيت دم نا با ген في ماكو يام لوون دينا كو وان بوغال مو خامني دينا تاخ مو اريرا دلو غيناو موتاخ يالا واخ تي ايه با تي القران نانا ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون سما قيد سما جامي دينا لن موسل موسل مبوغال مو خامني mbugal mu tuuti lay doon bàyyi mbugal mbugal mu rëy ba ëllëg pour ñu mën a bàyyi ñaawtee fi ñuy def ak lu bon li ñuy def delluwaat ginnaaw jéem a tuubaat loolu nag mooy jamono bii ñu nekk nii loolu la yàlla di wane subhanahu wa taala ndax yónent bu fi mas a jaar rek bu yàlla ma sa yónni rek am na lu xeetam def yàlla pinir leen yàlla duma leen ba mu des xeetu sayyidina Muhammad sa alayhi wa sallam xeetu sayyidina Muhammad bi ko yàlla yónnee ci ñoom yàlla daf ne yonent bi wa maa kaana allaahu li yuadibahum wa anta fihim waaye wa maa kaana allaahu muadibahum wa hum yastaghfirun yàlla nee na yonent bi sa xeet wi du ma leen mbugal mukk fii ak yaa ngi ci seen biir di dund ak ñoom waaye boo fi jógee fii ak ñi ngi sànq sax ci astaghfirullah yàlla nee na du ma leen mbugal waaye loolu dafa amatul léegi yonent bi nekkatu fi waaye tooñ gi bëri na waaye tuub ba tuub dellu ci yàlla it néew na te tuub mooy nga rafetal sa xol sellal ko rafetal sa yéene ba noppi bëri looy def astaghfirullah ak di moytu li nga xamante ne ni mooy tere yàlla yi te loolu amatul ci jamono moo tax mbugal mi yàlla wàccee ko fi mu mu nekk mbugal moo xam ne kaafatan la linnaasi maanaam yàlla da généraliser ci xeet yëpp ci réew yëpp ci àdduna yëpp amul amul xeet bi amul bàyyi xeet bi ndax yàlla dafa wax ci alquran wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasatan na ngeen ragal fitna ndax fitna dafa nekk loo xam ne bu ñëwee du yam ci bopp ki nga xam ne moo fitna bi te dafa am ci jullit yi ñoo xam ne seenu càggante na ci favoriser sax ñi nga xamne ne duñ ay julit pour ñu mëna def caay-caay ci biir diine ji te loolu yàlla remarqué nako bu yàgg motax yàlla nee bu ngeen moytuul mbugal bu ñëwé waxuma yéen ñukoy def way yeneen ño xamne ne xañ na neewoon nañ seen yoon neeku ci sax seen yoon na ci muju nekk ndax lépp ci seen loxo la lay ter motax yàlla wax ci alquran ne la wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum nee na lépp lu ngeen def ci musiba rek bay ba ngeen seet seen bopp xam ne yéen a ko def musiba moom soog leen a jot man yàlla ma indi ko ci yéen kon musiba yi war a tuub waaye war a sellalaat xol yi nag yéenante jàmm bëggante soppante te wóolonte ñu ko defee rek yàlla ci boppam dafay wàcce waat di suñ biir waaye tànk li amul rek mbugalum yàlla mooy wàcc te fi toll nii kenn ku ne xam na ne mbugalum yàlla wàcc na ñun ñëpp ndax bu dee borom xam-xam yi jaaxle nañ bu dee xalifa généraux yi jaaxle nañ bu dee président de la république jaaxle nañ bu dee chef d'entreprise yi jaaxle nañ bu dee borom société yi jeex jaaxle nañ directeur généraux yeeg ñëpp a jaaxle àdduna yëpp ñëpp ñoo jaaxle te loolu nag li ko waral mooy mbugalum yàlla mu wàcc suñ kaw kon yàlla mi nga xam ne moo mën a faj moo mën a saafara moo mën a tegg yàlla na yàlla teggi mbugal mi ba nga xam ne kenn dootu ko dégg fenn waaye daal li war ci jullit yi war nañoo taxawaat bu baax delluwaat ci yàlla tuub te lii nga xam ne moom la yàlla tere ñu bàyyi ko waaye bu ñu ko deful de fi yàlla di jëm ak ñun sax egsee guñ fi wala iyaadu billah yàlla bu ñu ko fekke waaye lii yàlla wane ci Sénégal ren rek doy na misaal ndax kilifa diine ñu fi gis ñu wàññeeku ci ci àdduna bi ren ci Sénégal kenn xamul lu mu toll ak autorité yoo xam ne dañoo wax ne ay homme de politique lañ wala ay tabaarakalla ay borom responsabilité ñu wàcc liggéey kenn xamul nu mu toll boo ko doon lim tey tey ay millions nit lay doon kenn xamul yàlla rek xam kon loolu dafay wane ne yàlla àdduna bi am na feneen foo xamante ni toll na fa tey jii te yàlla commencé na wane changement yooyu bu ko defee noonu loolu nag ci la nit ñi war a ndax yàlla daf ne bu ma defee benn affaire da cee war a jàng tiré ci leçon pour fii li ngeen jóge ci seen xam ne lii am na ci lu baaxul ngeen bàyyi ko pour mën a teguwaat ci bonne voie kon loolu moom la yàlla di wane ci àdduna bi tey euh, lépp loo xamante ne nii nag mi ngi xew ci àdduna bi ci loxo nit ñi la jóge comme ni ko waxee alquran a wax wa maa asabakum min musibatin fa bimaa kasabat aydikum waaye nag wa yaafu an kadir yàlla neen dina am ci yéen lu tuuti wala lu bëri loo xam ne leen jégal kon li koy waral nag mooy tuub dellu ci yàlla ak saraxe ak def lu baax li nga xamante ne la yàlla soxla muy diine ji muy alquran ji muy jaamam yu baax yi ñu nango sonni ci ñom nanga leen yeeram yërëm nanga leen dimbale ndax yonent bi neena kat sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama de leen yeeram ñi ci suuf bu ko defee ki leen supérieur mu yàlla subhanahu wa taala man leen yeeram kon donc yeermande bi ci biir nit ñi dafa néew dafa bëreetul bu ko defee loolu moy indi mbugal mi ba léegi waye nak yéen li ngeen def sen taxaway bi bokku na ci dimbale yàlla bokku na ci dimbale diine yàlla ji te yàlla na neena in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum bu ngeen jógee man yàlla pour dimbale ma man yàlla dina len dimbale ba noppi téyal leen seen i tànk ba mu dëgër ba li ngeen def ngeen mën koo doxal kon yéen li ngeen def yéen seen waa seen daara yéen a ngi def liggéey boo xam ne yàlla ngeen dimbale waaye nag yàlla moom moo am seen fay yàlla leen yàlla fay eh, Amadou daal lii ci gàttal lañ di ko def comme ay ak fàttali suñu diggante di ñaan yàlla daal yal na yàlla defal ñu dégg ak topp lépp lu fi musiba yàlla na ko fi yàlla jële yàlla indiwaat kóolute mbas mi tam ñi fi jóge te yàlla jël leen fi yàlla na yàlla yërëm leen te jégal leen ñi fi desit yàlla na yàlla sàmm leen te aar leen ci ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant aussi imam Sarr bi nga xamante ne ni moo ñu indi fi moo leen indi fi wax dëgg yàlla tabaarakallaahu ba bañ mën a xamante ak yéen moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm yàlla dafa dogal mu génn waaye ñoo waroon ànd fii teew kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. iqra bismi rabbika